Assalamualaikum, borom keman c'est vous wa tay nak dañ ñëwoon ni andon na yow di dem caisse ñu lay laaj lan mo waral yoonu caisse bi. waaw assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Awa ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di nuyu njagam mi nga xamne mom lañ jakar lool diko ziar bu baax baax ci koor gi di wax ne waaw machallah euh, ngi jëm caisse tay Euh, pour defi fa li nga xam ne mooy initiative boobu ñu yëkkati muy borom Kéemaan c'est vous ñu ànd ceeg suñu ay Baay Faal ñun waa kër borom Kéemaan su ko defee daal di fa jébbale li nga xam ne mooy ndogu yi foofu Thiès incha allah rabbi comme niñ ko defee woon la fois paase euh, Grand Yoff Euh, bëggoon ko defee la fois passée fële ca wakaam te yàlla lu ko waxoon naa ko ci vidéo yi bu njëkk bi bu ko defee tey nag ñu ngi nii def euh, def cortège bu rëy euh, bu ko defee war a dem yóbbu ndog yi Thiès quartier Thiali ci kër Kombe incha allahu rabbi waaw jërëjëf comme wa dëgg yàlla leeral nga ñu léegi ñun dañ lay laaj. waaw jërëjëf soxna Awa euh, Mouhamadou Bassir euh, doon na jaamu yàlla boo xam ne li ma liyee ak moom bari na mën naa ne su ko doon wax euh, dinañ yegg te sa du jeex suma ma xarit la ku baax la ku koo xam ne la jëmm la joo xam ne dafa am lu baree baree baree bare bari foo xam ne dañ fay tasee man ak moom ci maanaam mbirum baatin parce que dafa doon doomu aadama boo xam ne ginnaaw or yéen li ngeen ko xamee dafa am lu ay waajuram def ci moom li ay waajuram def ci moom mooy dafa doon jëmm joo xam ne bi mu doonee xale dañ koy yóbbu mu jàngi ndax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi topp ci wàllum image ak yooyu bu ngeen bu waxee rek ngeen déglu ko da di xam ne kii du analphabète dafa jàng da ngay xam ne kii xaafis la bu ko defee te ñun doon nañ ay doomu aadama yoo xam ne dégg nga magi saalum saalum yi daan ko léebu euh, dégg nga ñuy léebu ne euh, séddale kudd yi tàmm nañ ci kudd yu njëkk ya bu ko defee am na nit nu muy melak ak yow Euh, booy séddale ci kudd yu njëkkee da nga ko ci da ko ciy jéem a boole doon na doomu aadama boo xam ne ku yaru la doon na doomu aadama boo xam ne ku baax la doon na boo xam ne ku am sama kersa la man du siggi xool ma te comme ñu ngi nii si yoon bi dem boo demee nga seetlu ko ku baax la maanaam succès yóbbulu ko dara siiw yóbbulu ko dara yar bi baayam ak yaayam defoon si moom yar boobu noonu moom la maintenir ba léegi loolu moo tax mu jaxasoo kilifa yëpp xëy na man rek maa feeñ mais xaritu kilifa yëpp la xaritu kilifa yëpp la léegi nag bu ko defee loolu moo tax bi ñu amee bi ñu yëkkatee initiative bi euh, ci séddale yu njëkk yi ñu ne nañ ko si jagleel loolu moo waral ñu bëgg a dem cees ni incha allah bi xawati fekk ko ci biir bokkam fekk ko ci biir këram fekk ko ci biir soxnaam fekk ko ci biir nawleem Ah, defal ko fa teranga incha allah rabi yendoog moom jàng fa ay kaamil alquran ndogandoo ak moom buñ fa jógee defal ko décoration bu rëy en direct publiquement ñëpp di ko gis solal ko yëre yu cher su ko defee daal di fa def ay dogu ñaan daal di ñaan yàlla taxewaat fa déwén incha allah rabi suñu diggante daal dëgg-dëgg man ak moom daal li ñu boole bari na ba su ma ko doon wax daal duñ fi jógee incha allah waaw kay jërëjëf bu fekkee ne leeral nañu digganteem ak Combeen ah. léegi nag fi mu toll nii comme ñu ngi ci yoonu kees nañ dem xool lan la ñuy fekk ci kees ah. mbokk internet yi comme niñ leen ko waxee woon sànq rek ànd ak borom kéemaan fii ci kees yéeg si nañ nag fekk si fi kan artiste comédien bu mag kooku mooy kan mooy Combé ñu ràññee lool nag ci écran bi waa bu loolu weesoo kenn ku ci nekk na ma lay fekk fa nga toog ne la jàpp sama loxo di la laaj ne la baa koor gi sonalu la waa comme niñ ko daan defandoo yéen rek defal leen émission boo xam ne àndandoo ceeg borom kéemaan c'est fii ci kees. Anda sama kameraman, bi nga xamne ne fu may dem fu ne yobale ka kameraman topuma waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa assalamu alaykum wa kar Kombe TV asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum euh, wa Senegal. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen baalu àq di leen bal àq lu bari di wax ne. tey ñu ngi fii ci Thiès war a fee amal li nga xam ne mooy borom kéemaan c'est vous initiative boobu nga xam ne amaloon nañ ko chaque vendredi ñu dem xooli suñ benn soppe suñ benn xarit boo xam ne kenn lay doon si ñun ñu daal di ko jagleel li nga xam ne mooy bés bi lii daal mooy tànk yi Thiès incha allah. waaw ah, sëñ Modou Bène suñu bëggoon a mooy sëñ Modou Bène lan nga borom kéemaan doomu adama la boo xam ne euh, Salum salum la juddo salum yero salum magge salum su moy at yi nga xamne def nako bitim rew don geustu ji li nga xamne ni moy xam euh, xam euh don jaamu yalla bo xamne missionnaire lañ ci li ñuy def gem nañ ni yalla ñu fi yebal pour ñuy jang ci dam dam yi nga xamne moy dam mo am euh, gem nañ ni yalla ñu fi yebal pour ñuy saafara yi tey jaamu yàlla yi kii daal mooy sëñ Modou. macha allah sëñ Modou ba tey dañuy desandi ci yow mi melni Eh, li ngay faj. mën na mën nga kaa baaxee suñu mbokk internet yi pour ñu mën see bàyyi xel bu baax a baax a baax. lépp loo xam ne utal nañ ko tur mu nekk si ñett ma war laa limal dañ koy faj lépp loo xam ne utal nañ ko tur te mu nekk si ñett yi ñett yi moo ko waxee mooy deret mooy yax mooy sidit xanaa kon nit jeex na. lépp loo xam ne mu ngi ci dañ koy saafara mu ëmb na lépp nag daanaka boo fi nekkee di ko détaillé. dafa am ñoo xam ne nii dangay ngay versé wu si ñooñu mënumaa faj lépp nag mm. lu ma doomu aadama boo xam ne dama naan damay faj lépp waaye lépp loo xam ne xool naa ko ba xam ne mën naa koo faj mën naa koo faj te lépp loo xam ne feebar bu nekk si doomu aadama bala ma koo mën a faj wala bala ma see jël benn engagement ba xam ndax dama lu ma war a faj la wala déet dama koy seet su ma ko seetee ba noppi ba xam ne mën naa koo faj su ko defee dinaa ci soobu incha allah. sëñ Modou Gueye nag est-ce que mën ñoo xam sa diggante ak Bass nan la demee ba tax tey nga bàyyi sa yitte ñëw defal ko Eh, eh, Ramadan ci bir kërëm ndaysan relation bu bu bu nak relation bo xamné mhm. euh bu yéme la ci yoon bi rek biñu ñëw euh wa borom Kéemaan officiel dék nañ ma micro. mang mang ko ci wax bas dafa am fu bari fu ñu man ak moom euh mang naan leen yalla dafa dogal ay wajurum dafa am lu def ci moom. soko ko mu wax wala nga si bu ko ci télé bi rek nga xamné dafa am lu kaya ko yaré parce que dafa am ëdëb ba paré hafiz la bo waxee rek da nga xamné ki dafa jang te ñun yalla dogal na ni ñi bokk teen la xasso ay goj ndax yaaka na deng wolof yoy xari xari la andal àndal bëy bëy rek la ñuy àndal nag yi nag yi nit ñi nit ñi la andal mu doon jaamu yalla bo xamne kenn la ci man ku bax la ku woyof la waxna ko waa borom kiwaan officiel sank ci yoon bi ñi ñew neena len man bas du sikki xol ma ma ci mom ndax dafa am suma kersa te yalla dimbalé na ma ci mom ba nga xamne li kenn mënul am ci mom man dama koy am ci mom da xam nga loolu mom moy seul doomu aadama boo wala man mën na ne ci ci sama entourage man wala ñi nga xamne ñom ñoom ñom ñom ñom ñoom ñooma wër ñëpp ci aduna dama ko ci simil sa po mom parce que man yalla dimbalé na ma ba nga xamne nitu aduna yi manam ñi nga xamne fess nañ ci télé yak yoyu yalla boole na ma seeg ñu bari waye mom kenn la ci man mm-hmm. parce que amul ben heure wala ben waxtu wala ben tier bo xamne ni soxla na ko man keneen soxla ko jot ci amul ben heure bo xamne man waxna ko ne ko bas li la bëgg te defaluma ko amul amul ben heure bo xamne gis na dara ci mom luma ko wara wax na ko lii su ma sañoon nga bàyyi ko wax ko ko te du ko bàyyi loolu amul xam nga kon kooku cër jox na la cër am na fu mu la teg loolu moo tax bi ñuy démarré initiative bi ñu togg ko ba mu ñor ku ci mel ni ku ci mel ni ay ay doomu aadama yu bari ñu ngi ko doon ñi ngi ko doon sàkku ñu wax ko ne ko incha allahu rabbi dinañ la si cërale te buñ la si cërale ci kudd yu njëkk yi lañ la ndax cërale ndax séddalekat tàmm nañ ci kudd yu njëkk yi loolu moo tax kudd yu njëkk yi ñu sédd ko ci suñu waay la suñu waay la suñu waay la waaw suñu mbokk internet yi comme ni ñu koy baaxoo saa su nekk di def di dem ko seeti tey nga ñëw. Mhm. fekk suñu fii seet si suñu PDG ñu ciy rafet ñu koy rafetlu bu baax macha allah. Mhm. Eh, li ñuy laaj rek mooy sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan. Mhm. muy mel ni tur bi wër na àdduna. te macha allah tubarkalla léegi li ñuy laaj rek lenn la tey mel ni. sa digg sa digganteeg sa mbokk taalibe yi mhm. maanaam comme nii ngay bàyyee sa yitte mhm. dem di leen fekk ji mhm. est-ce que loolu noonu sa oyof teel sa oyof la wala lan moo tax wala mbokk taalibe bi moo la ko jaral ba tax nga koy def waaw xam nga borom kéemaan c'est vous lañu wax c'est vous bi bi ñu ko bi ñu bi ko amee wala la nga xam ne mooy bit bi li tax moo ko tax li ko tax a jóg dëgg-dëgg du am jot benn ñaar doonul loo xam ne nii dañ koy def ak moyens jàmbur. ñett doonul loo xam ne partenaire daf ñu see fekk ni sponsor xam nga boo ñëwee tey lu baree bare bare ci réew mi boo ko gisee ñu koy def mooy am ay yëngu-yëngu boo ñëwee da nga gis ñuy sol yére sponsor bi wala ñuy dawal ay bande annonce yoo xam ne sponsor bi da cee nekk wala sponsor fu mu dugal fukki dërëmam foofa noonu ñu koy defaree lañ fay def yëpp ay ay nataalam moo fay nekk te yaakaar naa fii gisoo benn nataalu sponsor mm. kon loolu ñun dañ koy def suñuy moyen bopp li tax nag ñu koy def mooy dañ ciy jaamu yàlla parce que dañoo xam ni dara gënul rëy nit ci àdduna mu lebal la bor bu baax nga fay ko ko waaye dara gënul màgg ci àdduna nit lebal la lu bon nga fay ko loolu moom yàlla ñu ci yàlla musal te Mouhamadou Bachir li ma def nii moom moo ko njëkkee mom moko jëkke mom mo dag yittem déplacer wu jugé fam nekkon ñew and ak délégation sama kër mom ak ben frère bu ñaan demba suma way la lol mom ñom ñaar ñu ñew fa yaangi dégg def ak man teranga defal fu def interview bu am solo dal di dem kon bor la bo xamne dama len ko warona fay si même budul won ci borom kiman c'est vous bi sax dama waron japp ben bes bo xamne damay dag sama ak and ak suma ay yi ma andal di ñew seet ci ko dafa tombee nak jamono dafa xat am na si ñu baree baree bare ñoo xam ne mën nañ lii may def waaye seen jot mayu leen ko même man sax su ma jot mayu ko waaye comme li ma la wax léegi si ginnaaw laa lay waxaat lépp lu ko jar rek moo ko jar te lépp lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole te bëri na ay doomu aadama yu baree baree bari dañ may dañ may dañ may nu ma ko mën a waxee dañ may yóbbante wax dañ naan borom kéemaan kenn mënu ko woo téléphone ba jot ko borom kéemaan kenn mënu dem këram ba gis ko léegi nag boo defee borom kéemaan c'est vous di nga gën a jege sa askan ndax dégg nga ma di nga gën a jege sa askan boo defee borom kéemaan see bu ka nga demal borom kéemaan see bu noonu moom am nay mbokk am nay nit kooku am na si ñoo xam ne mën na am yittewoo nañoo gis sëñ bi mënuñ koo gis am na si ñoo xam ne mën na am seen jëmm ju xeebu ji bëggoon nañ koo gis mënuñ ko gis boo fa demee benn temps bu ndaw ba nga fay def wàccee fa kaamil def fa hadratul juma wasifa fa def fa ay dogi ñaan séddale fa xeewal ñu ñaan tasaaroo loolu dara gënu koo màgg lii moo waral borom kéemaan see lii moo waral suñu tànk Cees fii tey waaye la nga xam ne ni moo ëmb question bi nga ma bëgg laaj daal moom laa lay tënkal ne la sponsor fekkul ñu si partenaire fekkul ñu si ñun ñoo koy def suñu moyen bopp ak suñuy moyen suñuy taalibe suñuy xarit suñuy nit yoo xam ne des fois ñu gis ñu def ko estati wala suñu ay nit def ko estati ñu ne ah sëñ bi fukki dërëm yii kat. ño bëggoon nga defal ñuko ci ndogu yi ñaar fukk yi kat am defal ñuko ci ndogu yi su ko defee loolu la ñuy boole lépp ak suñu xaalisu bopp donte kon du faj dara ñu yëkkati ko ñëw jébbal ko ki nga xam ne moom la ñu war a defal borom kéemaan seegu indil ko teranga yi ne ko toggal même bu dee benn tàndarma xar ko ci digg bi bu ko defee ñëpp bokk ci lii daal mooy tànk yi waaw sëñ sëñ sëñ Modou yow ñu gis ni est ce que yow sponsor yi nga tudd sànq nii mm-hmm. xaar nga leen pour ñu ñëw gunge la ci ah. ci li ngay def waaw <laughs> waaw waaw yàlla sax dafa soxla sponsor yàlla sax dafa soxla sponsor ndaxte bi mu bindee kaw noom bi ba noppi bam ba mu bëggee ñu xam ko dafa am nu mu def loolu soxlawul ñu si yegg si kon moom dafa am sponsor yu koy doxalal ay mbiram doomu aadama boo gis fii boo xam ne mi ngi yëngu ay yëngu-yëngale ci ay mbiram soxla na ci sponsor donte kon nag wa amaa bi neexmat rabik fadis yàlla bu la defalee xéewal na nga ko ci waxtaane di ko ci sant xëy na ñun yàlla defaloon nañu xéewal goo xam ne xaaruñ leen si ñoom ñun ñu ngi si def suñu yittee bopp ba ñoom ñu fekk ñu si ndax dafa saa jaajëloom laa yastaqroon saxante wala yastaqdimoon yaakaar nañ ne bu jotee rek dana ñëw moo tax xaaruñ ci kenn ña nga lañ ne waaye amul benn mbindeef moo xam ne mi ngi fiy def moo xam lu jëm ci mbirum diine moo xam lu jëm ci mbirum leneen te soxlawul sponsor ndax gis nga fan yi rek démb xaw ma barki démb rek gis nga waa ko prix boobu bu am solo boobu ñu def te ndaw soosu gagné ko nekk Louga yaakaar naa ñu ne ay sponsor lañ xaalis bari lañ ca dugal kon nak ñun soxla nañ ci sponsor bëgg nañ sponsor yi tek ñu ci loxo su ko defee fépp fu ñuy dem yóbbu seen produit bu ko defee fépp fu ñuy dem pour béggale ji jaamu yàlla yi ànd ak ñoom loolu moom soxla nañ ko waaw ba tey dañu des ak yow suñu ñëw jëm euh, muy mel ni gis nañ comme initiative bi ngay def hmm. ñu bëri si réew mi dañ koy def hmm. waaye dañuy dem ba si digg ba ay gàllankoor dab leen si hmm. yow da nga pare pour continuer ko wala lan waaw man sëriñ bi abadan daay man dapet bëgg naa fekk borom kéemaan mu ngi existé borom kéemaan c'est vous mi ngi existé bëgg naa bu fi borom kéemaan disparaître tax borom kéemaan c'est vous di existé. parce que yàlla dina ma dimbale su boobaa dinaa def ci suma njaboot gi loo xam ne su ma fi jógee ak su ma fi nekkee yëpp du feeñ yàlla dimbale ma dimbale na ma ci loolu. même su fekkee nekkuma fi dinaa fi bàyyi ay jaam yàlla yoo xam ne ñoom ñoo koy doxal même su fekkee damaa wuy ji même su fekkee damaa nekk bitim réew te mënuma ko initiative bi initiative boo xam ne la dafa universelle. boo déggee ci bande annonce yi commencement bi dañ ne borom kéemaan seebu bari na ñoo xam ne bëggoon nañ ñu def ko sax ci lu koor waaye ñun ñoo ko bëgg programme ren yemale ko ci koor gi. bu koor gi passé ba ñu def bilan si la ñuy xam ndax dañ koy continuer su lu koor waaye mbir moo xam ne da koy def sax su lu dul koor bu koor ñëwee fekkaat la loolu day continuer ci kattanu yàlla ak mbaaxam lu yàlla mayoon su fekkee nanguwut ko fekk ñu ngi xàmmee ne lii micro la. lii nangam la lii nangam la lii nangam la fii Thiès la fekk ñu ngi koy xàmmee. ñi ngi amal borom kéemaan si yow xëy na ñi nga xamne ñi ngi amalon initiative yu melni diko di yëngal dem bam yag ñu tek ko fa ñom ño xam li tax ñu tek ko fa ndax min ko li lo sababu waye ñun ci suñu jëm bop dal yéene bi ñu am moy lepp lo xamne commencé nañ ko yalla may ñu si ñu yegalé ko dal lool dal ñoo lañ ci bëgg ndax suñu baay daf ñu daan jangal nañu samihna wa atahna ta samihna wa atama umirta wa man taaba ma dañu juk koj comme ni ko yalla waxe ci katane waaw mboolem seen bopp ko kër kon day nak Serigne Modou Kémane moo fi ñëwoon sëñ Modou Gaynde Kéemaan moo ñëwoon seet si kër Kombé TV xam naa dañ koy bàyyi ndax mi ngi waaj a wàcc kaamil day waaja a def xadarat ijma dañ lay bàyyi rek nga continuer suñu mbokk sa sa wàcce kaamil gi ngay wàcce kaamil mm. da nga ñaanal kër gi bu baax a baax a baax ñu am ndam si li ñuy liggéey ndax bëgg nañoo wan waa àddina ni mu ne wuñu fee rek fépp la ñu war a généraliser boole ko ba na dañ leen jox di daje si kanam tuuti asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Hey, la, la. Yeah.

Yeah. leen di yéen ñëpp kenn ko nekk turam ak santam di sàkku ñëpp ñu ànd déglu ñu jàllale ay kàddu yu néew yoo xamee ne ni jógee na ci sëriñ bi wax dëgg yàlla mi sëñ Modou Gaynde borom Kéemaan dëgg-dëgg euh, liggéeyam ak li ko waral waaye lu jiitu loolu. yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa wax mine ne bu len dem fen te lu nekkune na ngeen jaar ci buntu bi buntu bi nak moy seigne bashir ñi gën ko xam ci combé deug deug koku moy buntu bi moy ala xam sëriñ bi yag nañu wax ci digganteem ñom ñaar ci lu bare, bare bare bare bu defé déplacement ñew fi deug deug lolu ñu ngi ko ciy ndokkee ñu ngi ko ci ñaan yàlla euh, beneen bi fekk nañ fi oustaz mu nekk borom xam-xam man toujours damay wax ma ne rôle bi muy suyee dëgg-dëgg moo gën a compliqué ci rôle yëpp ndax moom itam li ko diina may l'islam may ko ngor may ko personnalité xam-xam may ko ko war na ko mën a incarner ci biit li nga xam ne nii mooy théâtre bi mu jàllale li mu bëgg a yar li mu bëgg a yar kon dëgg-dëgg kooku moo gën a métti lool ñu ngi ko siy ñaanal yàlla moom itam sëriñ bi ginnaaw bi mu na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ak turam ak santam rawatina ñi nga xamee ne nii ñoo nekk ci biir kër gi ramati rawatina ñi nga xam ne nii eh, mooy kuréel gi ànd ak moom di liggéey ak moom mi Cheffo eh, ñoo ñëpp kenn ku ci nekk mi kër gi Cheffo damaa jàngul français nag. bu ma yàqee baat bi ngeen xam ne loolu la ngeen bañ maa li ma jàng mooy arab dégg nga arab dafa wax mi ne li kulli maqaanin maqaal place bu nekk rek ak lañ fa ak lañ fa war a wax donc loolu moo tax moom mu déplacé wu ak lu mi xat xat ñun xam nañ ne ku xat la ndax bëri nañ lu mi nekk ak moom waaye nag buñ la laajee kan mooy su way jur ñu ne la Cheikh Omar Diop Soput laa xarwa nekkul loo xam na ni dimbalante ak nit ak def lu baax ak liggéey lu baax warut laa mën a jomb ndax barki dem ak njaay rek lañ jugee ko ci gàmmam mu fas yéene tabax jumaa ci ak nu métti metti te dëgg-dëgg yaakaaru ci lu dul li jiitu ci ay ndimbalam mooy ak njabootam kon njabootam kuñ ne doomu Cheikh Omar Diop la dëgg-dëgg laa xarwal li ngay def jombut la ànd na ak rakkam di Maulana Cheikh Ibrahim Diop Maulana Cheikh Ibrahim li tax ma ne Maulana Cheikh Ibrahim Niass yonent yàlla moom sallallahu mi ne ki gën ci xeet wi mooy ku jàng alquran ba pare di ko jàngale moo toog daara ji bu sëriñ bi mënee nekk di def ay tournée di ko dimbale dëgg-dëgg daa fekk mu mën a am ku toog si daara ji di ko jàngaleel kon kooku ànd na ak moom ànd na it ak délégation bu rëy rëy boo xam ne nii ànd nañ jugee. Dakar wàcc Pout dëgg-dëgg ñoo ñëpp kenn ku si nekk ñu ngi leen di ndokkel euh, seen groupe bii seen groupe bii euh, nga xam ne ni moy groupe lan la royteef roykaay lan lañ ci war a roy lan lañ ci war a jàngale dëgg-dëgg bu fekkee ne ni nit ñi ñu ngi leen di suivre nga xam ne ni kenn du ci dégg loo xam ne nii lu neexul yàlla la nga xam ne ni man maa ngi leen di suivre benn suivre boo xam ne ni Kombe euh, Mohamed Bachir mu ngi jàngale di ko dóor dóor yi metti dëgg-dëgg li muy tegtale mooy ku jàngul ci sa euh, ci sa ndaw boo demee ba nekk sa mag da nga naqadee jàngal kon dëgg-dëgg Mohamedul Bachir sa tur yi rey na ñu ngi lay ñaanal yàlla ni tur yi rëyee màggee ko yàlla na ko sa mbir yëpp màggee mu ànd ak yoon woo xam ne nii ñëpp danañ ko sawar a seetaan kilifa yi danañ ko sawar a seetaan ñëpp danañ ko sawar seetaan sëriñ bi ñëw na. taam boobu mu tënk ko ñu bëri soxla ko ñu bëri yittewoo ko fu nekk ci àdduna nit yittewoo ko fa ngir lan ngir liggéeyam ngir kurusam ngir man ñaan yàllaam gu man ñaan yàllaam waaye loolu yëpp defu ko liñ ci jublu rek mooy dimbalante ñëw ndogoo ak finance financé alalam amul benn kenn ku mën a wax ne fekk si naa ko ci ci jàppale ko benn entreprise kenn ku ko mën a wax ne man maa ko dimbale li lu dul ñi koy jàllale ci statut di envoyé par fukki dërëm par ñaar fukk par téeméer ci ay xaritam naan ko lii ñoo la ko doolelee ñoo la ko dimbalee waaye lu dul loolu amul kenn ku ko ci dimbale te mu ngi koy def te mu ngi ñaan yàlla mu continuer ba nga xamee ne ni même bu koor gi jeexee ku ko bëgg la moom xaritu benn bakkanam la loolu yëpp ngeen seedeel ko ko ngeen ñaanal ko ci yàlla moo tax marhaban bismillah moo tax bismillah marhaban moo tax dëgg-dëgg mu andi yëre bi ak marhaban bismillah moo tax mu boo gisee ñi dagg ko li tax mooy sa mbokk bu ñëwee ci yow wan ko na ko sama mbokk nga wan ko na ko sama mbokk nga dinaa nettali benn xissa am na benn yonantu mi yontu yàlla Souleymane muus dafa ñëw dafa am si jamonoom benn muus moo xam ne ni séen na ku solo solo gaa yu baax ña mi ne kee day dafa mel ni si gaa yu baax ñi la bokk te ma ngay añ xaaral ma dem bu ma demee moom dana ma may lu ma lekk ba ñëwee rek toog rek mu jël dokk bi mu yoroon rek na ko ko teel ba mu ne ko teel daw muus mi dem kalaame Souleymane na ko kii dafa dama ko séen ma yaakaar ne. ci gaañu baax ñi la bokk mu ñëw ba mu ñëwee rek ma toog pour mu may ma benn suux wala benn boppu jën waaye yet wi la ma dóor mu woo ko mu laaj ko mi ne ko lu tax nga dóor ko mi ne ko dafa ñëw pour si sama añ bi mi ne ko moom ñëw laalu la def la dara léegi ndax da ngaa bëgg muus mi mu laaj muus mi na ko ndax da bëgg ma fayu wala da bëgg ma baal ko mi ne ko déedéet man kay baal naa ko waaye na na summi mbub mi bu summee mbub mi boo légee sama mbokk muus yi bi ñu ko gisee ak grand mbubam bu rëy te jàpp ne dañuy jàppale ci ci ñun la bokk ci gaañu baax ñi la bokk te fekk bokk ci gaañu baax ñi loolu moo tax kon dëgg-dëgg dafa bokk ci gaañu baax ñi mu ñëw moo tax ñi dagg ko ñu ngi ko ci ndokel donte la amu temps day ñaan rek mu dem ndax ci yoon la nekk ñu ngi ñu koy dégg léegi waaye loolu yëpp buñ ko résumé wax ji li ñu fi indi mooy dimbalante ngir yàlla fonkante ngir yàlla siyaarante ngir yàlla bëggante ngir yàlla comme nañ ko jàngee woon ci Laxdari na lépp looy def def ko rek te yàlla tax moo tax ñu ñëw fii ànd ak sëriñ bi ci kan Mouhamadou Bachir euh, di ko décorer amuñu. leneen loo xam ne ni gis nañ ne buñ ko amoon na lii moo gën a sedd suñu xol yàlla xam na ne danañ ko def waaye moom mii nga xam ne ni mii Jensineer moom laa bëgg Cheikh Baye Diop nga jóg décoreel ma ko euh, sëriñ bi mu décoré ko Mouhamadul Bachir directement soppeem xaritam solal ko ko ci kanam mbooloo mi ñi xam na ni nit amul lu dul yéene lii la am mu ngi koy ñaanal yàlla. si zahiran di ko ñaanal yàlla ci baatinan wasalaamaaleykum wa rahmatullah Vamos.

Bas. Bas lila lah. Sun bila aja. Yuri bila aja. Hah? Ah, coba kok kalis tuh. Lekas mau makanan, itu kan. Dan lo, apa nanya jual orang tuh? di yëkëti kaddu yi nak du suñu kaddu waye ci kaddu suñu rak lañuy waxé muy ndax euh, tabaarakallahu seenal xaalixiin ñëw gi nga ñëw fii tey lu rëy la ci moom te lu rëy la itam ci ñun ndax euh, yombul koo xam ni macha allah euh, àdduna yëpp soxla nañ ko àdduna yëpp soxla nañ ko waaye mu may la ci temps bi nga xam ne fa tabaarakallahu cher na lool mu jox la ci dara kon bu ñëwee war nga ko wax jërëjëf suñu oustaz suñu baay alxaaji Oustaz Mbaye Kane euh, day wax ni nit bu la defaree teraanga mënoo ko fay boo ko nee jazaakumullahu anna xeeral jazaai rek yóbbaale na lépp mooy bàyyi naa la ak yàlla mu fayal ma la te yàlla kum ci kum la wuut rek defal la ca loo xam ne xaaj bi xaajaat bi mënoo ko woon ndax inna allaha ala kulli shay'in qadir ko defe ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci kër gi sa kër nga ñëw ci sa njaboot nga ñëw ci sa biir soppe ngay ñëw léegi rek maa ngi koy wax maa ngi koy laaj bi ngeen xamante kañ la mu ne ma yàggul ndax ci ay publicité yu ma ko doon defar wala jotaay yu ma ko doon defal ci la ñu xamante waaye mu jàpp ma bis bu nekk mooy nemmeeku saa yu nekk mooy nemmeeku di ma woo di xool ci lan laa ne tabaarakallaahu loolu ne ku baaxul mënoo ko waaw te alhamdulilahi rabbil alamin nee na mi ngi sant yàlla bu baax ginnaaw ba mu sante yàlla sant ñaari waajuram di ñaanal suñu wayjur wi jiitu Baye Ibrahima Mbodj nga xam ne lii lépp moom la démb rek euh, dafa am ku ma doon waxtaanal ci affaire théâtre yeeg yooyu mu ne ma Combé bokk na ci li tax ma gën koo jàpp mooy li muy wax daf koo xam donte day comédie mais dina ci dugal ay aaya wala ay xadiis yoo xam ni dalay lay wér ni kii li mu wax da koo xam ma ne ko nag xëy na euh, yàllaa dogal li mu dogal ci moom. waaye tey ala kulli xaalin fu ma taxaw ci tànt téye micro moom war na faa taxaw téye mikoro ndax jàng na alquran ci daara la yaroo ci daara la màggee ba fa tabaarakallah sanal xaaliqin ni mu duggee ci théâtre bi moo tax ma ne ko bu ko deful rek day wàcc ko deful rek day wàcc yoon ndax suñu jur yàlla dimbali na ko moom nitu alquran la woon alquran la doon dundee yàlla dogal mu nekkoon muqaddam ci tariqa bi ki jox lijaada muy Serigne Moustapha Sy Jamil nga xam ne moo doon yaakaaram Serigne Moustapha Sy mooy taawu Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy Serigne Moustapha Sy Serigne Babacar Sy moo ko jox lijaada bi Serigne Babacar baayam Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick Alfahim Cheikh Omar moo ko moo ko jox wirdi bi jaarale ko ci Alfahima yoro silsila bi di dem ba ci Cheikh Ahmed Tidiane tabaarakallaahu kon bu bu melee rek la xarwa te alhamdulilah kër gi këru daara la ki ci gëna nek mag ba ki ci gëna fété ndaw ku ci nek fer nga ijji mën nga téye sa jukki kamil jàngal ko sa bop te nek tabarakallah bari wul foy dem diko gis te liñ nan al ilmu yarfau baytal baytan la laa imaada laha waaw wal jëhlu yëhdimu baytal izzi wa sharafi mune xam-xam moy fekk keur go xamni amul fondement mu yëkkati ko ba ca kaw ba ñëpp di ko dégg mu ne waaye riir mooy fekk kër goo xam ni tabaarakallaahu dafa dafa dafa ñoŋ lool am tabax yu kawe waaye mu màbbal ko ba kër ga raase dara dootu fa des moo tax suñu maam Ibrahima ba muy ñaan yàlla nan ko yàlla may ma jub may ma lii te nga boole ci sama njaboot yàlla dafa ne ko sa njaboot ku ñëw tegu ci ci yoon ba nga jaaroon ma boole ko ci waaye ku ci teguwul rek ala kulli xaalin mënuñu bokk yoon Serigne Fallou Mbacke radiyallahu taala anhu dafa mës a jugee tukki di euh, ñëw bi mu ñëwee ba ci yoon bi am benn waay bu ko e stoppé mu jàpp ko ci ginnaaw oto bi yóbbaale ko ba tey waaj xamul ni si oto Sëñ Fallou la dugg biñ demee bay wàcc tabaarakallaahu mu muy tàllal pour ñaanal ko mu gis muy Sëñ Fallou mu ne ko eh bi xaw ma woon ne yow sa sa laa dugg waaye macha allah nii la nii la ndax fii ngeen ñu fekk yóbbuñu bu yamal xiyaamee tamit nii ngeen ñuy fekkee nii ngeen ñuy buubee ñu biir aljanna sëñ Fall ne ko naa la fekk ci yoon bi rek waaw naa la fekk ci yoon bi moo la fekkee yoon bi ala kulli xaal ñu yóbbaale la kon nag tabaarakallaahu tey boo ñëwee sa teewaay fii dañ ciy kontaan bég ci lool lool lool lool te xam ni euh, dulu ndaw ndax euh, li euh, Serigne Babacar Sy waxoon ni آه، كوي طالب الشيخ فبيدته تباع اقي ب 1000 فما للفرق في بيع الكلام من كيغا خامني مو ام يينه مو ام يينه ني مان داماي جيلي داماي جيلي طريقه بي كي ام يينه داماي جيلي طريقه شيخ نينا كوكو بون كوي بون كوي آه، ويتشك ولي يوي نينا اوبين جوني سي اي غرات نينا موي نين بي mu ne kon fama lil farq fi bàyyil kalam mu ne kon nek tuuj ba waxuma la tuuj ba waye ganar ga te tay ku ne xamna ni cheikh ab cheikh mo fi ñëw te ku ne xamna cheikh na mu toll ci tariixa bi ken xamul dayom kon tay li fi ñëw du dulu du ndaw mukk mukk mukk mukk tey kër gi incha allahu rabbuna nañu xool fii ak déwén yokkute rek moo fi am ndax waxuma la dara waaye xadaratul jumaa bi fi def bañ paree dog yi fi joxe. tabaarakallah sanal xaaliqin yàlla bu mu niil te incha allah du niil bu soobee yàlla euh, euh, lii daal ñi ngi ci ñi ngi ciy kontaan lool lool lool di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a yokk martaba yi yàlla yàlla gën a yokk martaba yi te itam sama sama baay dafa mës a dem ci Cheikh Seyd Mouhamadul Mansour borom daaray yi ñu yóbbu woon suukaru koor bi ñu demee ku nekk jël kàddu di wax ku nekk jël kàddu di wax waaye moom bi mu jëlee kàddu mu ne dama mës a toog ci Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mu ne ma ñàkk fayda weesuwul nga dem ba ci sa docteur te waxoo ko sa feebar te waxoo ko sa jàngoro mu ne ñàkk fayda weesuwu ko euh, sëñ Mansour Sy ne ko lan mooy sa jàngoro yow waxal mu ne ko man daal damaa bëgg sa euh, sa mag ju tedd ja ni ma ko bëggee def ko ci sama xol muy Serigne Salas Jamil damaa bëgg fu ñu tuddee sama tur rek dàkkan euh, toftal ci turam mu ne ko kon tuddee naa la Ibou Jamil ba moo tax Sénégal foo taxaw ni Ibou Jamil ñu xam ne sama woy jur la loolu nag barkeel le moo koy tax moo tax ñun nag tabaarakallaahu ñu ngi gën a yeesalaat suñu cofeel ci yow di gën a tàllal suñuy loxo nga defal ñu ñaan di la wax ni daal bis ni nga ñu boolee ci sa bopp ñu nit boole nañ la ci suñu bopp te kóllëre gi du dak ba ilaa yow dog ba ilaa yow mi diin incha allahu rabbuna ndax ñi ngi ko sekkal ay gor lañu ay jullit lañu ay borom yu wóole te yow nag kenn waxaale wu la macha allah ndax ku la xool rek siimaahum fii wujuhihim min asari sujud kon nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, xëy na ñàkk mën a wax moo tax kàddu yi xaw a demee nii ñu ngi tàttani rek fu nekk ñu dugg fa waaye li bëggoon nañ mu gën a rafetee nii macha allah lu ci jub ñu ngi koy sante yàlla bu baax te xam ni moo ñu kàttanal lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu bu baax te xam ni ñu ci bëggoon mooy mu jub salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu